loolu moo di lakk lu mel ni ki xolitu soble wala lu mel ni ki xolitu laaj ak lu mel ni ki defeenu di nelaw ak lu mel ni ki di buub guddi maanaam mbalem guddi ak lu mel ni ki bàyyi am mbalit ci sa néeg ak lu mel ni ki di buubee ci sa kër lu mel ni ki wëttéen nga jël ko di ko di ko bale ak lu mel ni ki lekk ba noppi di raxasoo lu mel ni ki suuf ci say loxo wala lu mel ni ki ab cox ak lu mel ni ki raxasu ca ndab la nga xamante ne bii moom nga doon lekke donte la ka wa sax jeex na nga raxasu ca biir ndab la ak lu mel ni ki jekki ci buntu néeg ak lu mel ni ki wéeru ci ab kaadar ak lu mel ni ki jàppe walla sangu jàpp walla sangu ci barab bu am sobe ak lu mel ni ki ñaw sa mbubb ci sa kaw yaram sol mbubb mi ba noppi di ko ñaw ak lu mel ni ki euh, raxasu muy tis ci ndab li nga doon lekke ak lu mel ni ki teg am raxasu fa nga doon lekke ak lu mel ni kii nekk di jatu te mooy xeeti dëgmu yi ak lu mel ni ki dox aajo te solo ay sër ak lu mel ni kii lekk walla nelaw te amee janaaba ak lu mel ni kii euh, tayel ak lu mel ni ki yàq ak lu mel ni ki euh, jëmmi njaayum njaayum yalwaankat ak lu mel ni ki taaj ndab lu def aw ñam te bañ koo ub ak fay ab sondeel walla lu mel ni ki ab làmp ci di ko ëf di ko wal ak ñaan yàlla say wayjur maanaam di leen euh, di leen xeeti lu mel ni ki xeeti móolu la ak lu mel ni ki sànni lu mel ni teeñ wuy dund ci kaw suuf ak lu mel ni ki euh, ragg sa ndëggul tànk ci sa loxob ndeyjoor ak lu mel ni di saw ci am ndox moo xam ne dañ koo taaj ndox mu taaju ak lu mel ni ki taxaw di sol tubéy ak lu mel ni toog di kaalawu ak lekkee sa ñaari baaraam ak lu mel ni jaar ci biir ak jur ak di jaar ci biir aw jigéen ak di nàmpatalu ci juróom ñaari fan ci weer ak lu mel ni ki farala foq say baaraam ak lu mel ni di ko ràbbale ci sa bëti wóom ak fara faral a foye sa sikkim ak di leewiku ci say bëñ ak def yaramu neen ci naaju jant walla weer ak jublu xebla walla dëddu ko di dox aajo yooyu yépp xam ngeen ni yu bari la yoo xam ne dafay sabab ak ñàkk bokk na ci itam Euh, di lekk wala ngay naan bañ a wax bismillaahi loolu itam bokk na ci li sabab ak ñàkk ak di doyadal lii tuuru ciw ñam booy lekk ñam wii tuuru ci suuf nga di ko doyadal loolu itam dana sabab ak ñàkk ak lu mel ni ki lekk gu bari ak lu mel ni ki fen ak lu mel ni ki euh, ñàkk sol njëkk a sol dàllu càmmooñ ci waw ndeyjoor yooyu yépp bokk na ci yi nga xamante ni bii dafay sabab ak ñàkk te xam ngeen ne ñàkk nekk na di e, mbir moo xam ne ñépp war nañ koy daw e, mu dikkaat nag ci beneen bunt boo xam ne mbokk yi danañ ko di yittewoo lool loolu moo di li nga xamante ni bi dafay sabab am koom euh, bokk na ci li sabab am koom te barkeel ko moo di ragal yàlla